yéeme woon na trop jafewoon na trop metti woon na lool waaye nag lépp dañ koy delloo ci yàlla rek ndaxte comme du ñoon ndongu laaloon na àdduna bi yëpp looloo tax daanaka dañ koy daal di muñ muñ waaye metti na lool suñu liggéey gàllankooroon na lool te ay borom kër lañ ay responsable lañ ay ndaw lañ waaye nag dañoo am vision dafa am fu ñu bëgg àgg jafe woon na lool waaye nag lépp sant yàlla rek ndax liggéey bi demee wutoon noonu te borom kër nga boo wàccee dépense wala ak say frais jafe woon ndax oto yi moom bu fekkee ne dembeek dikk bi sooxee na rek ku nekk xam na ne comme ñun ci oto la ñuy liggéey bu oto yi circulé wu rek suñu liggéey du fonctionné yéeme woon na loolu waaye nag sant yàlla rek fi mu nekk nii moom euh, ñu ngi commencé reprendre ndànk-ndànk ndax te yi ñu ngi ñëw euh, ndànk-ndànk quoi waaye sant yàlla rek yéeme woon na daal yéeme woon na trop waaye nag jafe-jafe bo maanaam jàpp jafe boo gis rek jàpp ndal moo ciy topp daal jafe-jafe moom mën naa xam moom dunduñ ko bu baax a baax a baax ndax maa ne bi corona bi dugg ci réew mi ba léegi nii wax dëgg yàlla toll na benn mois boo xamante lool lool lool lool suñu daanan man sax daanal toll war une semaine ba ay 15 jours yoo a dem bërëb ba oto yi nga xamante ni ñoom la war a liggéeyal ma fa gis benn oto boo xamante ni mi ngi ñëw pour mu war oto yi dañ koo gaara woon ndax maanaam gasoil bi parce que da ngay taw tour la journée doo mën a génn sax gasoil koo ba bëggee boole ko euh, dépendance day métti dépasse tawñoon lool ñaan xëy ba wàcc jot doo seere dee doo seere maanaam dépense bi nga xam ne mën nañu jëfandikoo sax war na jëmi Serigne Touba dañu leb moom météo nag lool lool lool wax dëgg yàlla corona bi wax dëgg laal bu baax a baax a baax a baax ubbee transport nag ñu gën a yàlla bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla moom liggéey mi commencé amaat changement bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax it maanaam taxaw yu bëri dañoo gaarawan waaye biñ déggee ne ubbi nañ frontières yi wax dëgg yàlla oto ñu bëri ñoo gaara woon dañoo jumb ñëwaat ci ñun daal di defar entretien wax dëgg yàlla ñuy commencé salaat yàlla baax baax wax dëgg yàlla fari moom moom lu mu dee dee bu ñu xëyee dinañ liggéey ba wàcc jot wax dëgg yàlla ñuy sutur bu baax a baax moom daal ñuy sandaal yàlla baax di ñaan yàlla saa borom nag feebar bi moom mu jeex tàkk ci réew mi dañ nit ñëpp mën nekkaat seen activité boo xool léegi jëfetut ndaa lee tay jëfetut oto ni fa mu dal

ñun ñi nga xam dañuy liggéey ci wàllum oto yi liggéeyuñu am nañ problème boobu ndax oto yi bu demut dikkut ñun duñ mën a liggéey waaye nag instant bi moom ñu ngi sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla bi nga moom parce que changé na ba moom changé waat na baax la ko waxee léegi rek ngi sant bu baax oto yi yàlla moom ñu ngi ñëw moom jab tolloon na jamono yoo xamante moom garage bi nii boo taxawee nii mën naa ne benn oto doo fi gis waaw moom affaire yi tijjee ba léegi wax dëgg yàlla moom ñu ngi gis suñu bopp baax baax wax dëgg yàlla par rapport ak jamono yi ci ginnaaw instant bi wax moom ñu ngi liggéey ñu ngi sant yàlla daal macha allah instant bi yomb na yombut ndax nekk na liggéey boo xamante ni metti na trop ndax ci weñ ngay liggéey ci liggéey encore liggéey ci naaju encore boo rek wax dëgg moom tolee moom metti na trop na moom waaw waaye nag sant rek liggéey moom benn liggéey yombul daal wax yi ñëwaat na naa ni ay jamono ci ginnaaw da nga daa tolee oto parce da ngay tulee oto bi général doo changé dara lépp da nga koy tëggaat ay weñ lay doon mais jamono ji mën naa dafa xaw a changé ba nga xamante ni parce que conteneur yi ñëw parce que léegi yi léegi bagage yëpp léegi dañ koy monté waat léegi ay porte parso parce que lépp daal oto yi daal léegi lépp daal abiyé parce que ni tulee demoon bu njëkk daal xam naa ne léegi moom wàññeeku na léegi ndax bagage yi ñoo xaw a léegi quoi